yi mu fi waxtaan ba ñëpp mën cee jariñu mm-hmm. aussi ñu ngi fii seen ki nga xamante ne mooy sëriñ